Lamp Fall bu Serigne Assane Fall dëkk ca Thiès Kawsara Fall waaye ca Ndiarème kër maam Cheikh Ibrahima la dëkk ñu koy bu wax joyeux anniversaire à Mami Diop wareef suñu jigéen di xaritu groupe Futurs euh, Médias yëpp rawatina Kouthia Show di xaritam di doomu ndeyam di càmminam moom Mami Diop yàlla ko yàlla defal jàmm di jigéen bu am xorom waaye tamit euh, bu laabiir te tamit noonu la baaxee noonu la euh, amee yitte ci doomu aadama moom Mami Diop bu nekk ci wareef ñëpp a ngi koy ñaanal fan bu gudd joyeux anniversaire à Nadien ñu naan ko madame Guèye de la part de Lari El Hadj Ibrahima Diallo ci unité 11 ak tous les notables de unité 11 ñoom nañ ci Kouthia Show rawatina nag suñu xarit yi nga xam ne nag mooy Ngala Seck ak Aboura Seck depuis nord à belle famille de madame Sarr Lucine euh, Fall moo leen di nuyu di nuyu tamit Saliou Sarr ñoom Awa Fam ñoom Soda Sarr Nogay Sarr Mam Diarra Awa Fam bu ndaw ñu koy nuyu euh, bu bu ndaw ñu koy nuyu ak ñoom Dame boutique Parcelles Assainies unité 11 ñoom Aram Lam ca unité 17 ñoom Jojo Ngom sama xarit euh, Tukku Ngom et toute la famille Ngom depuis Castor ñu leen di bëggee bon séjour à Oulay Dabo sa cousine ñoom maman Assu ñu koy nuyu ñoom Ndeye Diallo madame Ngom Ahmed Diallo Ela Euh, depuis Kolda Abdou Rahman Dabo madame Boy Dabo ak Malick Gueye depuis Kolda de la part de Toutou moom moo jaar foofu nuyu nañ tamit alaaji Bassirou Touré xalifu Daaru Rilwan ak alaaji Serigne Touré Daaru Rilwan Serigne Bassirou Ndaw ca xalif bu Daaru Salaam di nuyu tamit Serigne Xay Serigne Xayra Touré ca Medina Salaam nuyu nañ alaaji Mountakha Touré Moustapha Touré Modou Touré ak Maxi Touré ca Daaru Rilwan ñoom ñëpp daal ziar nañ leen Serigne euh, suba nag incha allah euh, Pierre ni ko waxee dinañ ñëw ci Serigne Mbaye Sy Mansour ci déclaration bi nga xam ne def na ko ci El Hadji Abou ko defee ñun ñëpp nag ñu mun koo seetaan lam ca wax yëpp di ko remercier une fois encore di am mbégte contentement bu baax ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan Kouthia Show waaye nag suba dinañ leen wane euh, sëñ Mbaye Sy Mansour wax ju war a rafet bi nga xam ne wax na ko foofu ca Tivaouane waaye di ziar tamit bu baax euh, waa kër Cheikh Thirim mbaan sekk ca Tivaouane ñoom seen gàmmu gi daal neexoon na trop te ñëpp teewoon nañ ko ñi fa ñëwoon ñëpp nag gërëm nañ leen sant leen di leen ñaanal tamit euh, fan bu gudd ak wér gu nee nañ daal wax dëgg yàlla ñoom am nañ mbégte dédicace waa Dabali Dabali nag dëkk la boo xam ne bu neex la ñoom Samba Diallo Tamsir Diallo Boubou Mangasa Aïssata Ba Aïssatou Ba Fanta Mangasa a Diallo Oulay Gueye bébé Oumou Diallo de la part de euh, Fatou Diallo moom ci boppam mu leen di nuyu di nuyu tamit le grand chauffeur Abdoulaye Diallo ca TFM mbokk yi nag ki ñuy seeti mooy Karim wàdd defoon na euh, màggal mu neex waaye ay sources yu wóor nee nañ Karim ba jour gàmm gu tamit def na gàmm gu neex ci biir kaso ba ñu seeti Karim wàdd ak ki nga xam ne mooy pénitentiaire nan nañu gàmmoo foofu ca kaso ba kaso boo xam ne del am frigo. de ku tëj nit kay xanaa de ko xañ aafiya sedday jërëjëf Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ngeen gëm ndéef ak ci gàmmu gi jërëjëf Tiwaawan eh eh eh xanaa déglu bul wax ak man di ma joxoñ yow sax da ngay am lu rëy xam nga léegi ci buntu kaso bi nga doon dugg yaa ngi dugg ba sama chambre te du yoon. buy fii nga wax a taxaw. di nga delluwaat yow ci kaso ba ay waxu chambre. man del xam naa tuddul tuux waaye Serigne Moustapha Sy wal murshidi wal murshidaat yi dafa wax benn wax bu waaw léegi la kooku man naw naa ko mm. dafa wax benn wax bu am solo nee na nit mm. waroo fayantu mm. parce que fayantu baaxul man waxuma nag dafay jàppale de waaye ni mu waxee xam naa ne daal bëggul injustice ku dëggu la nag. kon yow Macky Sall ngay gaaruwaale. man waxuma moom lay gaaruwaale de. jàmbur ngay jël dama ne Serigne Moustapha wax na wax bu solo nee na boo nekkee ci nguur bul fayantu loolu dafa am solo. Bakary. oui murit nga wala tijaan nga. bul taalibe yàlla <laughs> yow waxoo fi woon barki Demba Ndiaye ne murid nga. waaw waaw jërëjëf Serigne Touba. la tijaan gàmm gi nga romb dëkk yëpp taamu si tijaan may. xam nga leen mu am solo wuy ma xam nga leen mu am solo. Hmm. yàlla ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. tijaan baax na. murid baax na laa laayeen baax na seen baax na. yow ku la topp nga feeñal ko. man de yaa ma fi waxoon barki démboo Ndiaye ne yow murid nga yaa ko fi wax. amagul nag un mois tey jii nga ne fi tiijaan nga. déglu ma. yaa ko fi mooy tijaan. Tijaan mooy Murit Murit mooy Laayeen Laayeen mooy Murit Murit mooy Ñaseen Ñaseen mooy waa chambre 14 li ma wax dëgg la. gis nga gars yi ñu ngi bëggee wuy ma tey gàmmu la Tijaan yi ñoo aye may ma tuuti. ma xaar eh, waa chambre 12 ana Tijaan yi. ñu ngi fi. ay tey nañu bo si. mbay si. chambre 14 chambre 14 mais nii tuuti nga ni. yow ban mbay ngay wax mbay si Mali. Serigne Babacar Sy. xam nga anu dama gis ne moom dafa bëri taalibe te ñu nekk ci kaso bi yëpp kuy dem di julli da ngay damay dégg mu ne taalibe sëñ Mbay la wa chambre 14 ay tijaan ñoo fa nekk ak ay morit ak ay jullitu yàlla bàyyi ñu ñu bëggee way bu ñu yàq tey gàmmu la ba su yonente bi la ku neex bëggee ay chambre 14 mu joli. kooka leen ngay sàcc oui Give me my génne ma nañ dem siyaare mu génne ma mu génne ma mu génne ma sëñ Moustapha Sy Al Amin Serigne Mbaye Sy Mansour Jory projet bi sant yàlla sant yonent bi. liberté provisoire. oui oui. gaawal nga lijjanti noo génn. bàyyi ma damay sant damay ni damay sant Tiwaawen damay sant Tiwaawen sant Thiès sant ñëpp bàyyi ma kër benn sëriñ ñëpp maa ngi leen di Euh, sëriñ bi al maxtum maa ngi koy di ko ñaanal Cheikh Tidiane Sy al maxtum maa ngi bi li mu wax dégg naa ko na fayanto kenn du ko def nit day baale kon demee ci baax kenn mbay si mu gaale ma te génne ma merci merci oui Mbay Si Mbay Si Mbay Si Mbay Si